kon moo du ñu dem directement ci démb li xewoon dañuy illustrer ñu commentaire ko démb euh, vote yi léegi nag mi ngi toll ci euh, commentaire yaa ngi tul ci dix mille cinq cent alaaji ay votants maanaam dix mille cinq la waaw ah. dix mille cinq cent votants yi nag man li nga xam ne man ngeen jël seen machine bu leen neexee wala ngeen calculer li nga xam ne man moom laa gis euh, mooy un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize dix-sept Pape Djibril Fall ci dix mille cinq cent voix yi am na ci 17 voix. 17 waaw maanaam <laughs> commentaire yi toll na ci euh, dix mille cinq cent voix euh, diggante Pape ah, Djibril écrasé gars yi <laughs> léegi euh, waaw 17 17 voix laa gis gars nag mën nañoo continuer xool <laughs> waaye daal man 17 voix la choix bu gis kon daal diggante Baye Assane ak kii Pape Djibril sa diggante ak Pape kon noonu la kii am na nag gars yu ma gis ñu naan maanaam dafa mel ni lii sabotage la di méngale Assane ak Bougane déedéet du Assane ak Bougane de ah, réew mi dafa am ñoo xam ne ku ne da ngay bëgg koo voteel ak ku la neex léegi nag Assane Mesre lii du fi am mhm. dinañ jël ku nekk chroniqueur yi ci réew mi mhm. ak président Macky Sall sax dana ñëw mhm. maanaam daal ku nekk dinañ la méngale moom ci réew mi nu ngeen noo def ak ñoom ndax yow Abdou laa bëgg yóbbu élection te fii lañ lay testé waaw Abdou damaa yóbbu te fii am nga maanaam dix mille cinq cent yi daal dix-sept voix laa man kay xam nga ne matal naa sëkk paranaas fi mu toll nii <laughs> waaw matal naa paranaas wax dëgg yàlla hmm. léegi looy wax kon mbokk yi la voté waaw xanaa di leen gërëm hmm. di di rafetlu seen taxawaay ci man <laughs> di leen wax ni leen maa ngi leen maa ngi wax ngeen gën a jàpp te ngeen gën a wote te xam ne fii ba tëjtal ba si kàttu na hmm. sunu borom bëgg naa ku ñëw ma maasale ko si politiciens yi ku ñëw dinaa ko maasale ba ba may tëj si ah, ah, politiciens yi ma lay jox tey nar naa tàng de ah. ma ne comme doon dinaa jaar ci kawam Ah. Mm. ndax gaa yi nga xam ne ñoo may wateel xam nañ maa maay kan maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ba bañ tëyee si policiers yi bu ñëwee si chroniqueur yi ni ngeen waajal léegi léegi tey alaaji kon yow miy joxe ki àndal tey mm. assan koo koy jox tey jii son yi bu mm-hmm. dañ koy jox borom Ndakaaru ki nga xamante ni kii mooy ku ànd ak moom mm. ñu ne gañe Ndakaaru boo àndut ak moom doo gañe Ndakaaru muy xalifa Ababacar Sall Assane am nga problème Assane am nga ah, problème Assane <laughs> Khalifa altine altine Assane ak Khalifa sàll moom mooy jàll fii kon xam ne ni am ngeen temps wu vote diggante Assane al euh, samedi uh-huh. ba dimanche kon ku bëgg a votel sàll un ngay def waaw ku bëgg a votel Assane Mesere deux mais vote nag ñu ngi koy defee ca euh, tiktoku Babacar Kane Babacar Kane ca TikTok ba incha allah. waaw ah. démb sa gis naa ko mu dagg émission Omar beeg yu bari dugal ko fa. kon Babacar gars foofu la ñuy defee vote yi. merci beaucoup.